te di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di nuyu kulluhum képp koo xam ne jamono bi tembe yaa ngi bàyyi xel Baol Média FM ci 88 point 5. ci Mbàkke tabla caa bi xale bi dënmal dëkk bu sell ba di Touba nuyuwaat nañ leen ziara leen bu baax a baax di leen wax euh, des nañ ci seen émission Baol matinale di émission mag bi xew ci diwaanu Baol ak li ko wër. di jaajëfal bu baax a baax Oustaz Diagne Faye bi nga xam ni moom moo ñëwoon ak yéen ci seen émission yóbbalu suba bi tarkala ci kàddu yi am na solo te it euh, matale na. waaye di jaajëfal bu baax a baax it mbooleem équipe bu Baol matinal waaye di jaajëfal it mbooleem personnel rajo Baol Médias FM tamit te di leen ñaanal jàmm bu baax a baax te di ko sàkk ñoom kulluhum rek ñoo ngi lay nuyu bu baax te di leen ziar dellu di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk ci barakati cheikhul Xadim kon xam naa bu ko defee dañuy jox sama gaay yi ñu daal di nuyoo ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moo di euh, waxtaan bi salaamaaleykum nuyu naa leen yéen yéen waa penkoog waa soowoog waa bët gànnaar ak waa kullu kora yow gent ñëw xawma gent xawma sax xawma tiit gent ko musa wa gent deguma gent ma wa jiga sa micro yëkëti ko tuti yow fallu comme dop sénégal rek ra mom la de amal ah, kay dama kan yow mi ab camerounien nga non non am mbalaxté noir mbalaxté noir ay ta tafa dal ñëw euh voilà ñu ngi ni mbokk yi yi nga xamanteni ñu ngi ñi bayyi xel ak mbokk auditeurs yi général des mourides sëriñ mu taxam Mbacké di ko ñaanal mu yagg fi loolu ti wér ak mbooleem khalifa euh, yi ci biir réew mi yépp ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom di nuyu suñu DG ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm euh, mais aussi di ko sàkku ci ñoom di am mbégte ak contentement di ànd ak euh, équipe Baol Matinal fekkoog Moustapha Bassir ak ma ma ma ma ma ma ma ma cousine mhm. voilà ma cousine engagé na ak di nuyu Oustaz Diagne ñu ngi koy ziar baax moom tamit moom lañ jàkkaarloo ñu ngi koy nuyu baax di ko jox wàccuwaay euh, voilà di nuyu ñëpp. li mhm. nga am jàmm bu baax tey couleur yi moom dafa différent trop kenn niroo leen borom. tey kay ay tax ak ay tànk ak. Eh, xaw naa niroo leen xaw nag masala xaw naa naa la tuuti ak. ay basante bu fanaan ak. ak waxaan. nga tey couleur ah. basante bu fanaan sax dafay génn basante bu yàgg ci bool boo bu xëyee noonu mel noonu. réeroo am na dëgg ci biir kenn réeroo te morom. ayca war xaar taxawal. sax xaw nañoo kii wante de xaw nañoo cofante de. waaw bu yeewoo bu jógee nii mel. tey da am berso man déggoo ma xanaa man kay Fall bàyyi na ma niroo liggéey. Ah. tey damaa siisu taa ngi koy siisu laa xewal siisu gu métti métti métti. jéem naa laal jéem waaye xam naa jéem. mukk mukk mukk damaa ber sama yoonu bopp tey. tey bokkuma ak yéen dara dara dara dara lu dul wax jox leen ngeen wax jox ma jeex na point barre. seen couleur yu bari yi moom Fall. oustaz moom yëg mm. waa man aleykum salaam suñu soix ñu ngi lay nuyu. di la ziara di la jaajëfal ci liggéey bi. Mm-hmm. di nuyu soxna Warxa ak euh, sëñ Fallou Fall moom it ñu ngi koy ziara ak technicien bi soxna Yande Codé Sène. gannaaw boo xamee ne siyaare nañ kilifa yi diine ak kilifa yi aada yëpp siyaare suñu directeur Serigne Modou jog Thiat di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye itam auditeurs yi ak auditrices yi góor jigéen mag ak ndaw fu ñu mën a nekk rek ñu jox la loxo di la ñaanal jàmm. ay jot tafadal Adja Warkha bisimilah. Aïcha nuy nañ auditeur ak auditrice yu rajo Baol Média FM yëpp 88 euh, point cinq waaye tamit internautes yi nga xam ne euh, ñu ngi ñuy topp ci YouTube bi ñu ngi ñuy xool nii di nga suñ basante yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, ziar di leen wax rek ci leen ak jàmm ci émission bu mag bi émission bi nga xam ne moom ngeen doon xaar namoon naa leen trop nag après màggal gi daaw yi ma nekkoon <laughs> root mi la woon <laughs> dégg naa Fall di ma classe naan pause bi kii waaye. gars yi ñoo doon laaj de jamono la. waaw bari na ñu doon laaj te. waaw gars yi maa leen maa leen rawoon de loolu boobu yëpp maa ngi leen doon dégg waaye am na yu ma nekkoon daal xam naa. jamono la daal xam naa ne ñu nekk <laughs> ah, root mi rootu la. yi tey yi tey jamono ji la woon rek oustaz ah. ak ak toppatoo gan ñi. xam nga bu jàllee yaram yi day kii day. yooyu noonu waaw sa yaram bi doon métti loolu moo tax ma jaar man la bu suffit ay sant daal di laal ci sa bopp daal di sangu moo tax. gaa yi damaa ñëwaat encore am énebe gaa yi ko toppatoo gan yi. Hmm. gaa yi gën na xat. gaa yi gën na diis te gaa yu jeexee na yooyu da nga leen a gis. gaa ya ah gaa yi. yan gaa yi. gaa yi bari nañ de <laughs> kon xam nga. yow. si doomu kenn gaa yi laa la ñun ñun gaa yi bañ posé dañoo toogoon barangee na. barangee na. bu ngeen <laughs> mm. jàmm sante ba noppi ngeen. bañ posé dañoo toogoon en tout cas nuyu nañ ñëpp rek <laughs> wax leen dal leen ak jàmm seen. émission euh, Baol matinal noonu lay demee rek ba 10h allah ci émission bu mag. jaa ngeen kon bu ko defee rek xam naa rapidement ñu xool yi Matlabul Chifa yi santé seen couleur yi ci leen ko xool. ah ñun moom wax dëgg yàlla yéen nañ nañ ñu nag seen yéen yéen seen mm. couleur yi bu réeré doom. jël sa yoonu bopp man jël sama yoonu bopp ba ji. man sama couleur xaw naa laale ak bi yére war xaar. war xaar xaw na laale ak ak oustaz. am na demee rek dañu moom ñu maase moom. waaw moom dañuy maase. waaye technicien bi sax ci otes. xam nga ñebe yooyu noonu waxuma ñebe bu xonq. yaa ngi ko woon sax ci otes. yow couleur boobu nga amee yow. oustaz couleur ñebe bu ñuul leer ak couleur nu nga bu fanaan ci ci bu yeewu bu jógee ni mooy ñebe ñebe ñuule ñebe ah, waxee ñebe foo dégg ñebe ji ah, ci yàlla nekkee waaw yow kay yàgg nga dem damay laaj foo dégg ñebe ji laa laaj rek woon. fii di toog tàppat dong la jàpp nag yow xaj dong mën laa jubloo kon na nga na nga góorgóorlu ba mu ba mu bëkkanteeg golo yi rek <laughs> bëkkanteeg golo yi yàlla boo ñëwee xam naa kon xanaa kon na ngay paralysé fa yàllaawu kon moom. non man moom ah, rek na ko baax ak dof. Hmm. maa ngi jégalu waaye Mm. aja kon ñu dem madlabul sifaay santé cabinet madlabul sifaay santé borom borom borom borom borom touba darul marnan momale nak ba paré nak nañ ma bal, gaay faj yépp nañu nañu nañu pause da dem ci cabinet madlab ah wax nga ko paré wax na ko paré waaw jamm ci njëkk jamm ci muccu ku déglu na xayrun bu kenn jotali kenn nag ku dégg rek ñeel patak mom bu kenn jotali kenn fa laa ci yem yaa ne man lim boole ji couleur mom mom yëpp man no yaane mom couleur am ay xale la kay. ci kanam tuuti dernière bi huit heures kii. deuxième attaque mamaay a soppeeku kay dañuy xaar. mamaay sa kay doo ko jiitu ci de. ah la xool. waaye nag lu mu mën a mere rek te ne borom baatu bu bu rëy bi kan laati. ah xam nga kay Adja Weex moom day xëy baatu mbubb mi xoolal mbubb mi génn fële dee génn fële non seen bi suñu ngóor si war nañ ko dugal roq bi nag di ko jàngal sañse weex na de moom weex na de moom. day xëy na foofu suba fajar si de moom. saa nga weex fajar si de moom teel naa teel naa génn moom tey. sa waay. moom koy fajar. moom koy dem ko léegi bu kon nu nga weexee waati ko nelaw kay daa mel ni moom. moom du moom moom bëri la. te li ma naqar ci moom bu yeewoon lu mu jëkkurut fëkk ko sol nag moom. ànd moom di lafar lafari ci gën a. man Diop Diagne boo yeewoon nee naan deel toog ab diir réfléchir xool li nga war a sol mais loolu nag jigéen ñi mu na rek lu mu fekk mu mu tere mu cëppoo xool moom xoolul <laughs> non moom xoolul ras na xoolul ras na xoolul lii baatum ba pant na Diop daal mi ngi noonu rek ay mbiram man jaaxal naa man wax naa ko pare yow it nanga ma jéggal tarkaal <laughs> ndeysaan ko jikko yónneen la yor ah moo xaw ma jikko yoon la xaw ma waaye de lu mu lu dem lu mu fekk daal muy wékk dana ko wékk ko cëppoo ko tewey rek moom xam naa ni <laughs> nga mas a son bu moo xam ne ab si ndaxa fanaan ci boobaa nag buri dina bëri ci rajo bi lool waaye yàlla bu fekk aja kon kaar la ñu dem ci cabinet man la bul si waay sant walub dégg dina mokk sa déw ca dégg kàndang ana ñi feebar dugg daane leen ba ñu ne jànjang professeur Samb ay mbiram laanaan leen tànjang ginnaaw bi mu gëstoo ci réew mi jàng lépp lu jëm ci wàllu garab moo xam reen la xob ba ci sunguf professeur Ahmadou Samb dafa dem Maroc xootal njàngam ci wàllum faj moo xam moderne la wala traditionnel la maanaam fajum hôpital wala fajum cosaan delsi war na ci réew mi ubbi fi cabinet mat la bu Chifa i santé mbokki bawal mbokki Sénégal kii mooy professeur docteur Ahmadou Samb borom matlabu sifa yi santé fajam ñaar la na ak traditionnel la maanaam hôpital ak fajum cosaan moo tax bu la xoolee nga war a def analyse dalay yebal hôpital nga def sa analyse yut ko résultat yi mu sukkandiku ci fajal la sa jàngoro ba nga wér plek yee waaye ndaw Samb kii la réew miy wër yéen ñi amee hémorroïdes moo xam bu nëbb bi la wala bu feeñ ulcère yéen ñi amee impuissance sexuelle maanaam góor gu néew kattan dem leen ci cabinet Matlaboul Chifa'i santé bu docteur Ahmadou Sambou dangaa amee carie dentaire ndoxum siti dala koy traiteel raxas ko ci sa yaram ba mu set wecc règle douloureuse muy jigéen ji gis baax muy métti rhumatisme articulaire asthme colopathie yii yépp docteur Ahmadou sambu defar na ci ay composant ci wàllu planté muy garab yu am solo yoo xam ne mbooleem ñi ko ñam xam nañu la mu saf da ngay jigéen sa karam am ay tache wala sa yaram docteur Ahmadou Samb am na ci ay pomade yu doy waar am na it ay saabu yoo xam ne boo ko sangoo sa yaram day liis ngay nef ne fi foo jaar ñu lay xoolaat ndax sa tee docteur Ahmadou Samb am na ay garab yoo xam ne boo ko jëlee day raxas sa biir mboolem lu di tooke lu di jàngoro da koy raxas sa biir ba bu set wécc daal di lay revenir nga nekkat xale beesa taq docteur Ahmadou Samb yow station li biya villa numéro 460 dina nekk yi Touba samedi ak dimaas ngeen mën koo fekk ci route national bi boo jógee Mbàkke ba romb tableau école yi ndaam yi romb juuti bi cabinet mi ngi ubbee ci tali bi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 77 630 45 73 wala ci 77 673 61 16. jaajëf cabinet euh, Matlaboul Chifayi santé mi ngoog tarkal la nekk cabinet boo xam ni nee na laaj ci wàllu garab moom moo ciy leeruwaa aca kon war a xaar tafa dal ayca suñu cabinet man la bu Chifaay euh, santé nee naa leen faj dañ koy man doo jóg rek euh, ne damay faj te dafa bëri ci jamono ji sunguf yi sunguf bari na ñoo xam ne yóbbu na leen lu ne <laughs> léeg-léeg wàll gi du mokk léeg-léeg dosage bi. léeg-léeg mu xajam. léeg-léeg mu xajam Ah, loolu loolu war daal suñu cabinet cabinet si Chifaay santé moom euh, li muy def daf koy teg ci yoon. man ginnaaw boo jàllee oustaz suma paree dinaa laaj ko <laughs> ko la wat. d' accord d' accord. oustaz tey moom ah. <laughs> déet waay man man kay man la si waaye sant yàlla rek yow kay maa ngi tey ci plateau bi du yóbbu moom. saa <laughs> ne la wërum ñetteel waaye Madou yóbbaale ñaar booy dem sax far. code <laughs> moom posé na candidat ja fajar ma wax la ko fii la toog ma ne ko code teel ngaa jàkkaarloo ko oustaz moom oustaz tey daal rafet de. <laughs> ah code code code sama jigéen la code sama jigéen <laughs> suñu cabinet man la woon Chifa yi comme ni ma ko waxee sànq rek euh, cabinet la boo xam ne euh, dañu fay euh, faj li nga xam ne moom mooy di ndoxum siti dañu fay traité hémorroïde moo xam interne la wala externe la. waaye tamit ñi nga xam ne dañuy amee ballonnement wala dañuy seere wala ñi nga xam ne tamit dañuy am problème mu euh, lekk am na ñoo xam ne bu ñu lekkee duy gaaw a rees ak yu mel noonu euh, bu ñu demee cabinet Matlaboul Chifa'i santé am nañu fa ay euh, garab yoo xam ne bu ñu leen ko joxee incha allah daañu lekk bu baax ñi nga xam ne dañu amee tamit euh, lu ci mel ni kist wala fibrome euh, wala sax ñi nga xam ne dañu amee cancer sax dañ leen di euh, traité ñi nga xam ne dañu amee goitre ñoom tamit dañ leen di traité foofu ca cabinet Matlaboul yi santé bari na feebar yu nit di jàmbat di ci sonn wala di ko wëyaale ñu ñëwee cabinet Matlaboul Chifayi santé daanañu ca am rek ay saafara bari na feebar yoo xam ne Euh, daanaka rek euh, nit ki daf koy woyaale waaye du ci am solution wala léeg-léeg euh, du am kàttan wala mën-mënuk dem l'hôpital moom cabinet Matlabul Chifaay santé docteur Ahmadou Sambou soo ñëwee daf lay defal rek li nga xam ne moom moo di diagnostic daf lay xool ba xam waaye tamit balaa muy dugg ci di la faj dafay xool ba xam mën na laa faj ba pare ndax ñu bëri dañuy dugg duñu xool ndax mën nañ laa fajam déet da ngay ñëw rek ñu yëkkati garab jox la moom bala moo yëkkati garab jox la xool ba xam garab bi mu lay jox mën na laa faj wala déet bu fekkee tamit dafa aajo fajum tubaab daf naan la demal kër doctor bu fekkee dafa aajo tamit nga def lu ci mel ni ay analyse wala lu ci mel ni que euh, rajo daf lay yabal kër euh, docteur nga def analyse wala sa rajo nga indi sa résultat mu daal di lay faj waaye tamit yëmuñu ci euh, loolu comme ni ñuy fajee noonu rek la ñuy yëngoo ci wàllum cosmétique ndax am nañ fa ay savon yoo xam ne ñi nga xam ne dañu amee ay tache ci seen kanam yi ñi nga xam ne dañu xeesal ba seen yaram yi yàqu ñu bëgg ko réparé waat léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay euh, jël fu mu toll jël jël kol di muuru fekk xeesal moom moo yàq yaramam euh, boo leen ñëwee cabinet Matlaboul yi santé di ngeen tàqalikoo ak euh, yu ci mel noonu ndax am nañ fa ay savon yoo xam ne daal macha allah am nañ savon boo xam ne tamit moom mooy antifatigue mooy bii am sax xam ne dama koo bëgg kii moom aw bëgg sama bopp kenn du moom sama mante bi mi ngi nii naanaa lañ ko defaree oustaz naanaa mante lañ gome sa yaram ba pare bu fekkee da sono, sonn tamit da nga liggéey ba tas boo ko sangoo boo tëddee moom nelaw rek ngay def jàmm rek ngay ngay ngay am jàmm ak salaam bii nii mooy savon menthe bi waaye tamit am nañu fa original ndak bari na fenugrec yoo xam ne dañ la koy jaay ci marché bi boo xoolee sunguf bi dafa weex tàll yooyu noonu bi Euh, fenugreek rek yooyu nga xam ne dafay am poussière rek wala dafay dafay yàgg ndax garab su yàggee dafay changé wala la mu doon jëriñ du ko jëriñ léeg-léeg nga gis koo xam ne man damay naan fenugreek rek ba sonn waaye tëréewul euh, du may faral di lekk lu bari fenugreek rek daf lay lekk dafa amee fer pour ñi nga xam ne dañoo manqué euh, deret ñoom tamit dafay baax si ñoom ñi nga xam ne dañuy def sport ñoom tamit góor ñi nga xam ne dañuy dem ci salle de yi ñoom tamit yii dafa baax ci ñoom yow <laughs> waaw yow de ñii dina baax yoon na ngay am force fajar gi comme léeg-léeg da ngay daw. yow gisub xaj doo nga daw yow yow koy ku baax rek leer rek yow koy toogal. comme léeg-léeg da ngay da ngay da ngay daw. bàyyi ba gàmm gi jàll am na sunguf bi am nañu tamit euh, grain bi grain bi moom ngay jël nga def ko si ndox di naan ndox sunguf bi ngay boole ak li nga xam ne moom ngay lekk am nañ tamit curcuma curcuma bi moom mën na dem ci togg waaye tamit euh, mën na dem ci yaram dañ koy gome yaram dañ koy jël nga def euh, tuuti ndox daal di taf sa kanam wala sa yaram moo xam fu mu mën di doon en tout cas boo ko defee ba pare di nga sentir de peau morte yëpp maanaam yaram bi kii peau yu dee yi yëpp waaw yëpp dafay dafay dañ te noonu la baaxee tamit ci lekk dañu koy def ci lekk waaye tamit épices yi nga xam ne mooy tax ñu mën a wàññi cube yooyu noonu di jar euh, ñett yi cent yooyu noonu ak yeneen yi mooy moo koy remplacer nga xam ne am na laaj am na laurier am na curcuma am na tamit euh, kaane am na aussi euh, poobar yi euh, sëñ Fall yi moom xam naa daal ku siis moom du ko togg ndax ñulug bi moom <laughs> dina xëy xëy koo xam ne ku romb dana ñëw añ si déedéet jërul ngay dem marché di jënd ay laaj ak yooyu yëpp am na ci biir danga koy kii ah? <laughs> <laughs> non bii moom <laughs> non bii ku siis du ko togg ndax bu xet moom ku mu xeeñ dina añ si dina añ yàlla bu muy ceebu jën nag waaw kom que Touba nag léegi da ngay génn ñu naan dimbali ñu koy añ waaw ah. buñ jëndee lii day yomb buñ jëndee lii day yomb li ci neex mooy dafay dafay fajaale en même temps li nga xam ne moom moo di ay tension wala lekk yu dul gaaw a rees euh, yu ci mel noonu yëpp ak euh, suukar bu ëpp beeg xorom bi nga xam ne dafay ëpp du équilibré ci sa yaram bi euh, yooyu yëpp daf koy fajaale kon moom dafay neex ngay lekk ba pare tamit mu di la faj kon képp koo xam ne rek bëgg nga suñu garab yi wala tamit suñu épices yi Euh, ñu filim ak savon bi waaye tamit euh, diw bopp bi nga xam ne moo tax léegi benn xale bu jigéen leelatul wala muy ñàkk karaw léegi moom ñëpp dañuy peñe di fil di fëlaale di sànnee di def la leen saf euh, suñu walla Madlabul Chifaaya la képp koo xam ne rek bëgg nga ci mën nga ñu woo ci 77 673 61 16 77 673 61 16 boo ci wootee rek. Euh, boo ñu waxee fa nga nekk dinañ la tegtal barab wa nga xam ne moom moo la gën a jege nga daal di fay dem daal di jëli sa euh, matlabul sifaa yi santé waaye tamit euh, borom boutique yi nga xam ne dañu bëgg ci épices yi bëgg détails ñoom tamit mën nañ jokkoo ak docteur Ahmadou Samb